19 h ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum daleen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu ne mu ko jukki dina bokk yenn ci ay ndaw yu uh, diwaan yu uh, Sédhiou ñoom itam mer ba futt la ñu def uh, tax na itam ñu daal di amal aw doxu ñaxtu ngi rek daal di bëgg yenn ci ay taax yoo xamante ni dooroon nañu ko ca boobule gox ñu daal di koy eggali lu ci mel ni stade muni stade municipal bi ak itam inspection d'académie ba ci sax li nga xam ne moom moo di centre socio culturel bi daañu déglu ki nga xam ne nag moom moo di Mamadou Niang mi nga xam ne nag moom mooy coordonnateur bu boobu le rassemblement bu ñu fa jugee euh, daañu wutali ca Kër Moussa zone sud foofee itam ñenn ci ñoo xamante ni euh, toxaloon nañu leen bi ñuy amal li nga xam ne nag moom moo am nekk xàll wa jëm aéroport international Blaise Diagne ñoom itam la ñu xamle moom moo di ci la jamono la ñu manqué euh, boobu boobule gox bari na tax na itam aw ndimbal boo xamante ni ñu ngi koy sàkku ci njiit bu réew bu Sénégal jëm ca ñoom ndax itam jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund atum lan 2002 ba tey ñu ngi koy dund section càmbaan foofee nag jàppale ne xam ngeen ne euh, xibaar yi neexatul benn yoon lu mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo ak itam euh, jiit bu bokk moomeel ba fa ndax itam askan wa dañoo jàpp ne rek euh, maire boobee ngeen di gis day jaay seen ak suuf di ko jébbal ñenn ci ñoo xamante ni fekkuñu baax fii ci réew bu Sénégal tax na itam maire ba mi ngay ragg deram ba mu set di sàkku itam ci chef religieux yi itam ñu daal di ciy dugal li nga xam ne moom moo di seen ak yoxo laata béy di wéy mbuus daañ waxtaanee leneen mu wàllu wér yaram jàpp leen lim bi lu toll ci ñaar fukk ak juróom-benn eh, ci ay liir yu tooy xepp ñoom ñoo daal di génn àddina ca diwaan bu eh, Kaffrine lu ni mel itam aw taxaw seetlu la ñaar téeméer ak ay eh, fanweer ak juróom-ñeent ci li nga xam ne nag moom moo di niveau national bi mu ñeel li nga xam ne nag moom mooy ay bës wi ñu jagleel mère enfant maanaam waajur yi ak itam ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di liir yu tooy xepp yenn saay génnuk àddina yi nga xam ne nag moom lañ ci faral di nemmeeku tax na itam gouverneur Bafa bu Kaffrine ci la jamono itam mu ngay wëyal di def kéem kàttan ngir rek ñu mën a xeex xeex bu ni mel rawat na jëmale eh, ci wàllu kër docteur mbokki yi tënk yaa ngoog bu ngeen taaxir la tuuti ma dikk ñu faram fàccee yenn ci ay taax yoo xamante ni nag mu ngi ñu door fa nga xam ne nag moom moo di ca diwaan bu uh, Sédhiou boobaak léegi lott nañ ngir daal di koy àggali tax na itam ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo amal nañ aw doxu uh, ñeextu ngir rek ñu daal di koy eggali lu ci mel ni stade municipal bi inspection d'académie ba ci sax li nga xam ne nag moom moo di centre socio-culturel bi waxoon naa leen ne uh, Mamadou Niang moom mooy coordonnateur bu boobu les rassemblement moom lañ leen diktal ay kàddoom ci micro ki nga xam ne moom moo di Bakary Jàmme ñu naqar mooy euh, liggéey yoo xam liggéey yi nga xamante ne nguur gi tàmmale na ko fii presque mu ngi bëgg mat juróom-ñaari at wala mu ëpp ko liggéey yoo xamante am na yoo xamante ne sax waru sax mat at ci seen wax ay weer lañ def war war a def donc liggéey yooyu noonu ba léegi ñu ngi fii à la traîne donc ñun suñ naqar mooy que ni dañoo bëgg chantier yooyu noonu une bonne fois pour toutes mu mën a jeex parce que buñ ne région région du Tour région melo la te melo melokaan boobu noonu je pense que Sédhiou en a besoin melokaan boobu lañ soxla loolu mooy suñu ñaxtu dañoo bëgg suñu stade bi mu jeex stade bi pas mu jeex mais mu doon benn stade de qualité mu am synthétique ñu mën a jouer ay match nocturne seen dafa tàng dañoo bëgg suñu espace numérique ouvert bi mu jeex parce que jàng moo doxal réew dañoo bëgg tamit euh, suñu conseil départemental ñi tabax ko dañoo bëgg suñu euh, gouvernance ñu tabax ko dañoo bëgg suñu centre culturel ñu tabax ko dañoo bëgg tamit suñu case des tout-petits bi nga xamante mu ngi dembayaa Sédhiou fii ba mu daj yëpp benn case des tout-petits moo am xale bu ndaw tu tànk boo xamante ni mu ngi à trois quatre kilomètres de case des tout-petits bi je pense que mënul fa voilà donc loolu mooy voilà loolu mooy suñu ñaxtu ñu bëgg nag nguur gi mu jóg ci taxaw si vraiment pour chantier yooyu ñu mën a jeex parce que vraiment on a le gouvernement a beaucoup bénéficié de notre patience je pense que maintenant. nous nous assez assez gouvernement bi dafa am wareef. parce que buñ ne ministre du sport du ministre du sport Saint-Louis seulement du ministre du sport Mbour seulement du ministre du sport euh, euh, Thiès seulement. Ah ministre du sport Sénégal la bokk te dafa fi am ay prérogatives. travaux yi seen budget bi génn na budget ci année lañ koy tënk donc bu génnee génn na nañ ñu wax sunu. alal fu mu jaar mais au delà de ça aussi alal googu nañ ko jël dugal ko pour askan wi. bokk na itam ci lu mu leen doon junj barina ci ay village yoo xamante ni nag jege woon nañu lool aéroport international Blaise jaañ ba ñuy amal lu ni mel lañ rek leen daal di toxal ci la jamono itam fañ leen yóbbu rawatina diwaan bu Kër Moussa jàpp leen ne askan wa ñu ngi ci ay jafe-jafe bëri na lu ñu manqué moo xam ndox ak yenn ci ay jumtuwaay yoo xamante ni nag ndaw ya fa yeewoo des na ci mën a jàppandiku ak yeneen yu ni xeetoo tax na itam askan wa ne lott nañu ci jafe yi nga xam ne nag moom la ñuy dund ndax itam atum l'an 2002 ba tey tey ñu ngi dund lu ni mel Cheikh Anta Diop ak Sey Latir ñoo fa demoon ngir amal aw reportage ñu seetaan. kii di kesu xaat leen suun jàpp tuli kacalit ba mbadat di dëkk yi nekk ci zone sud ca Kër Moussa dëkk yi ci biir aéroport bi la ñu nekkoon ñu toxal leen tey jii ci benn site de recasement waaye nee nañ atam 2002 ba léegi ndàmpaay leen waroon a jox daanaka matul. ñëpp la AIBD impacté parce que bi ñuy toxal kesu xaat andi ko fii fii ay toolu jaamur la woon le village de Lenn le village de Suun wala Tuuli ñoo moomoon suuf si ñu indi ñu teg ñu fi terre bi bi mu commen bi mu jógee jam ñaaja daw tuuti la dugg ci Kër Moussa mu commencé impacté Kër Moussa foofu ba aéroport wala autoroute à bi ñëpp ñu ngi daw ci seen gannaaw indemnisation yi depuis 2002 ba léegi bi ñu commencé processus aéroport bi nee nañ dëkk yi nekk ci boori aéroport bi ay jafe-jafe yu métti la ñuy dund. ndax xale yi juddoo fii nii ci site de bi yëpp koo ci yóbbu dispensaire dañ ni ne il est asthmatique te du asthme poussière bii di daw nii yéen sax bu ngeen moytuwulee asthme di ngeen ko fi jëlee. pour mener vers la route dem euh, aéroport ñun ci suufu pont la ñuy dugg pont boobu oto bu mag mënu fa jaar oto bu ndaw rek moo fay jaar boo amee camion booy andi ci biir gox bi. da ngay wër nawet bu jotee dañuy dem ba Pout jële oto foofu wiire dem Sébikotane pour dem aéroport bi nga xam ne da ngay dox ak tànk pour dem fa c'est impraticable. ñii di nekk ci site de recasement yi dend ak aéroport international Blaise Diagne ñi ngi sàkku nag ci directeur bu bees bi di Abdoulaye Dieye mu dikk nag ci barab bi xool seen nekkin ndax mu indi ci saafara. ñeneen ci ñoo xamante ni ci la jamono ñu ngi nekk ci jafe-jafe Cheikh Anta jàppal ne euh, groupe scolaire Kumba euh, Dendeng Sonko diwaan bu Mbour foofee nag seen eau dafa rek daal di euh, couper ndox mi ndax itam bor woo xamante ni municipalité bi daal na koy amal ci la jamono moo xam ndaw ñi ñi yëngu ci wàllu njàng mi ak njàngale mi ba ci sax ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di wéy juri ci aw njàqare la ñu nekk ndax itam ñàkkum ndox ñu teelu reportage bi nga xam ne Ndeye Mati Dieng ak itam Mamadou Guèye ñoom ñoo ko amal. waa école municipale Coumba Dinding Sonko bu Mbour ci njàqare la ñu nekk. au secours au secours dix mille fois. jàngalekat ak élèves ñëpp a àndandoo di laajte ndox mi nga xamante ne dañ leen ko gàntal ci weeru septembre ba léegi. école bi depuis mois de septembre ñun amuñu ndox ñun nag dañoo bëggoon ñu jàppale ñu ci ndox ndax jamono bi lépp ci biir école bi le nag gune goo gis mu ngi yore bouteille mbaa gourde bu ñu duy ndox ba mu fees li ko waral nag bu ñu sukkandikoo ci njiit li seen eau moo leen est là école boo xam ne plus de 700 enfants mu ngi ci biir école bi donc di jënd ndox chaque jour dafay metti looloo tax ñu ngi woote c'est un cri de cœur ñu ngi woo monsieur le maire mu dimbale ñu ñu résoudre les euh, problème bi le plus rapidement possible pour que enseignement apprentissage yi war a mën a door. bu Niang moo fi teewal liggéeykatu groupe scolaire Coumba Dinding Sonko bu Mbour ne noonee amee waral ba ñoom ak ndongo yi dañoo sonn. ñu amul ndox njàng mooy lépp nit mën na ñàkk courant ñàkk leneen mais boo ñàkkee ndox mënoo liggéey surtout nga am ay xale yoo xam ne ñu ngi am 3 ans jëm 12 euh, ans ñooñ ñoo fi nekk donc xale yooyu tout le temps ñu ngi soxla toilette te bu amul ndox amul sécurité. jiital wayjuru ndongo yi muy xamle ni jafe yi li nga xamante ne seen doom yi ñu ngi koy dund ci bile école neexu leen te itam càgganteefu ñi nga xamante ne ñoo waroon fay facture bi la. dama rus ci Sénégal hauteur bi mu toll fi mu toll je m'attendais pas franchement. ñoom ñii téye ndox mi bu fekkoon def nañ ko seen kër kon ndox mi du agsi kon nañ ñu dimbali ngir yàlla xale yi nag nee nañ yuuxu nañ sab nañ daanu nañ léegi la xale yi bëri bëgg a naan amuñu lu ñu naan j'étais obligé ma jëndi ndox ku mbedd mi. kilifa yi ngan ngànk groupe scolaire comme Dinding Sonko bu Mbuur ne dàq ñu sax bañ a jàngale ba jëmmi jamono tombeek ñu andil leen ndox mi nga xamante ne moom mooy seen bëgg-bëgg bi gën a rëy jamono jii jamono yi lay ndeymat yi jàppal ne kàddu yu waro ñàkk déggoo ak leneen ci loo xamante ni daal da ci toftalu lu ni mel moom moo dox ah, ci diggante ah, maire bu ah, mbaan ak itam askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo ndax askan woowee dañoo jàpp ne yenn ci seen ak suufa maire boobee da koy jël di ko jaay yenn ci ay étranger tax na itam ñoom ci seen bopp maire ba futt la ñu def waaye jàpp leen ne maire bi ci la jamono itam mi ngi ragg deram la mu xamle moom moo di la askan wa foog demewu ni tax na muy sàkku ci yenn ci ay chef chef religieux ñu daal di ciy dugal euh, seen ak kàddu bu ko defee nag euh, coow la daal di fay laataa béy di wëy mbuus ñu teewlu ki nga xam ne euh, moom moo yor li nga xam ne nag moom moo yor kàddu googale gox di maire ba dem mburu Sow lay wuyoo ci micro Ousseynou Diop. ñi nekk fi tey yaakaar naa ñëw si mbaan nee na mbaan takkana mbaan daañu rey daañu foofu jaar si ay néew mbokk loolu mën na am du am fii ndax nun suñu bopp duñu keek de l'état bi du jël li nga xam ne waruñ te duñu jël ay force l'ordre ñu fekk fii sama ay nijaay fekk fii sama ay rakk man dama leen wax ne képp ki nga xam ne yore woon na ay programme pour mu régler mbaan wala mu jël force l'ordre wala nañu ma muñal ma dem waxtaan ak sama njeboot dem leen sëriñ yi dëkk naa leen loko man keekuma sama ay njaboot de bëgguma dara nekk foofu lu ñaaw de xam naa ne même ñoom duñu ay nit yu ñaaw esi saay saay waxul dëgg esi dafa yàkk kalaat yaa ngi dégg ku yemmi ñam tàcc du mun a wax jàmm mbokk yi maa ngi leen ñaan ngeen xam ne ngeen dallu waala nun benn bokk lañu kenn mënu ko kar ñaar nangam ñi kam lu mètre suuf jaar ñoo ñooy jaay suuf man xamuma lan mooy njaay suuf kaw ma képp ki ma ko wax jum na ay kàdduk euh, dembel démbiru euh, sow maire bu mbaan ngeen doon teewlu noone ñu wéyal xibaar yi mbokk yi wax itam ci leneen bu dem ci bët gànnaar euh, bu réew bu Sénégal foofee nag jàppale ne yenn ci ay soxna ñoom ñooy ñaawlu yenn ci buntu xataal wala boo ko xotal woo xamante ni nag dañ koy def ci seen ay ñooñ di seen moroomu soxna tax na itam soxna soo yooyee nag dem fa nga xam ne nag moom moo di ca bu fédère bi diwaan bu Ndar Géej ngir wax fa li nga xam ne nag moom moo leen metti ci yenn ci ay métit yoo xamante ni euh, seen ay moroom ñu ngi koy euh, dund Ousseynou jóob Habib Seck ci reportage. sàkku bi ñuy sàkku jigéen ñi ci biir kër yi wala boog ñu di faat te ñu koy amal lu ci bari nekk ci biir kër yi di seen ay jëkkër wala lu ni mel loolee nag moo naqari collectif des femmes féministes du Sénégal moo tax ñu ñëw ci place Bayandar amal fa sitin ñoom nag nee nañu loole dañu bëgg mu dakk Sénégal dañoo seetlu ni jigéen buñ ko reyul violé nañ ko bu ñu violé wul jigéen am na benn xale bu jigéen boo xamante ni tëddee nañ ko muy pédophilie loolu la ñu ñëw wax ni on en a marre. ci seen kàddu kenn faalewu leen te lii bu fekkee ni noppi nañ ci ñoom jigéen ñi seen bakkan mi ngi ci xottu gerte. trois jours successifs kenn benn xale bu jigéen bu am 17 ans jëkkëram rey na ko parce que mënul am doom keneen jëkkëram rey na ko parce que euh, dafa demander divorce mhm. keneen rey nañ ko te li gën a métti mooy bu ñuy wax euh, rey yooyu ñu leen di rey dañu naan ay crime passionnel keneen ko xamante ni bokk na ci collectif bi li la muy ñaawlu mooy tekkaaral bi am ci nguur gi mu ni njiitu réew mi amul benn yoon boo xamante ni sàkku nañu wala ñu faat jigéen mu daat cee yëy yàbbi. Macky Sall yow mën ngaa tuite si lépp loo xamante ne xew na ci réewu jàmbur yi waaye li nga xamante ne moo xew si sa biir réew mënoo ci sax tuite xamoo sax jigéen ñi métital ak rey bi nga xamante ne ñu ngi leen koy rey te mu nekk loo xamante ne. tegguñu ko fe jigéen ñi takk nañ seen sër nee nañu lu jëm ci wàllu faat ba ñuy faat jigéen ñi déndi sàkku ak yeneen yi nga xamante ni daleen koy def ci biir kër yi loolee lañu bëgg mu dakk ñu ni ministre bu ñu jagleel jigéen ñi ñu fal ko bees ñu ngay ñaan ci moom mu def ay jéego ngir jafe-jafe yu nu mel mën a dakk jigéen yooyee tawat bu leen yëpp lool bokk na ci li nga xam ne nag moom moo di cancer seen i ay moroomu jigéen yi taw taxaw temb ngi rek daal di xeex lu ni mel tax na itam association femme catholique femme de valeur di ñaax seen moroom yi soxna ngi rek ñu daal di xeex jàngoro ju ni mel bu ci noppi itam daal di koy dànkaafu kàddu yu ni mel ñu ngi ko yëkkatee ci aw randonnée pédestre woo xamante ni aw thème bu am solo lañ ko daal di eh, yëkkati Marie Thérèse Mbanjami moom mooy njiit boobule association moom la ñuy teewlay kàddoom euh, ci micro Pape Farañing groupe femme catholique femme de valeur dañoo woote tey femme yëpp ñu ñëw ñu ñëw ak suñuy jëkkër suñuy mbokk yu góor jigéen ñu ñëpp ñu mën a ñëw ce qui ñu jàppale ñu ci suñu lutte bu ñuy def contre cancer donc xam ngeen ko xamee cancer jàngoro boo xamante ne cancer bi sein jigéen ñi lay dal donc euh, te mi ngi gën a law suñu dëkk bi donc dañ fi ñëw tey comme médecin yi nu ñu koy defee ñoom ñu ngi ci médecin yi ñun ñu ngi jël suñu chapelet di ñaan pour que yàlla jàppale ñu ba ñu mën a wàññi bu dee mënuñu ko génnee complètement mais ñu wàññi ko carrément yàlla jàppale ñu si donc ku nekk ak sa domaine médecin yi ñu ngi ñoom seen domaine ñun ñu ngi suñu domaine mooy ñaan yàlla di wax femme yëpp jigéen yëpp nañu dem dépisté wu instant yi ci ay lieu yu bëri gratuit la nañu ñaan jigéen ñu ngi ñaan jigéen ñëpp ñoom ñëpp nañu dem ñu dépisté wu parce que feebar bi kenn comprendre ko doo xam sax nu muy ñëwee médecin yi xëy na xam nañ ko ñun xamuñu ko torop mais nañu dem dépisté wu au moins benn yoon ci at bi ñu mën a ñëw dépisté wu ñu xool naka la même jëkkër yi forcé leen seen i jabar wala seen mbokk yu jigéen ñi ñu dem ñu dépisté wu une fois au moins par an yi ci ay la nañu ñaan feebar bi kenn comprendre bu ko doo xam sax nu muy ñëwee médecin yi xëy na xam nañ ko ñun xamuñu ko trop mais nañu dem dépister wu au moins benn yoon ci at bi ñu mën a ñëw dépister wu ñu xool naka la même jëkkër yi forcé leen seen i jabar wala seeni i mbokk yu jigéen ñi ñu dem ñu dépister wu une fois au di masawu baax a baax soxna yi nga xam ne nag amee nañ boobule euh, jàngoro di leen ñaanal suñu borom def ci ñoom euh, tawféex ñu wéyal ba tey euh, des ci li nga xam ne nag moom moo di wàllu wér-gu-yaram xam ngeen ne dugg nañ ci ay bés yi nga xam ne nag moom la ñu jagleel waajur yeeg tout tànk yi mu ñeel semaine nationale de la santé de la mère ak itam de l'enfant ca diwaan bu Kaffrine foofee jàppale ni nag ñaar fukk ak juróom-benn ci ay tout tànk yu tooy liir yu tooy xepp la ñu nemmeeku ne ñoom ñoo fi génn àddina ñaar téeméer ak ak fanweer ak juróom-ñeent ci li nga xam ne nag moom moo di euh, niveau national bi bu ñu sukkandikoo euh, ci gouverneur bu euh, Kaffrine di sàkku itam ci askan wi ñu gën a baral li nga xam ne nag moom moo di xeex lu ni mel moom William Manel la ñuy teewlu ay kàddoom ci micro Oumar Ndiaye. Au niveau de la région de Kaffrine, 26 décès ci région bu Kaffrine jot nañu xayma ñaar fukk ak juróom benn jigéen yoo xam ne dañ ñàkk seen bakkante bu ñuy am doom ak ñaar téeméer xam ne dañ ci mujj des xayma yi sax ñu ngi ko def ci atum 2021 bi ñu génn nii bi ñu xoolee xam ne dañ koy faral di nemmeeku ci ñoom ak ñi nga xam ne tamit dañuy wasinee ci kër gi ak jote ci yenn bërëb fajukaay yi xam ngeen ne ay bés bii nii dañ ko jagleel jigéen ñi nga xam ne dañuy ñàkk seen bakkan ci mbirum am doom ñu mel nag ñu bëgg mu wàññeeku ci biir réew mi naam jot nañoo def ay jéego te nag jéego yi nañ ko gën a lawal ci biir da tax tamit ñu xool naka la ñuy wàll wu ni mel waaye tamit li ñu bëgg mooy dañ fexe ñëpp yor seen loxo rawatina ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu wér gi yaram ak askan wi rawatina kilifa yi nga xam ne tamit ñi ngi ci gox bi waaye loolu lépp tamit dañu fexe ba yi nga xam ne mooy di bërëb fajukaay gën leen a jege wax ci doole tamit askan wi soob ci seen loxo ngir fexe ba ndey ak doom ñi nga xam ne dañ daan loru ci wàll wu ni mel mu wàññeeku ñeneen ci ñoo xamante ni nag euh, la ñu am ci handicap bokk na ci li nga xam ne nag moom moo di dër niki ki démb xam ngeen ne euh, mooy bés yi nga xam ne nag euh, moom lañ leen jagleeloon ñuy dund li mel itam bëgg na bépp dogal woo xamante ni dañ koy jël fii ci réew bu Sénégal seen i ay ñooñ itam am ci taxawaay bu mucc ay bu ko defee ñoom ci seen bopp ñu mën a sentir seen bopp fii ci réew bu Sénégal Mouhamadou Bachirou Dieng moom mooy njiit li moom la ñuy teewlu ay kàddoom ci micro Alioune Dissa Pera comme ni nga xamee chaque 22 octobre dañ mooy dañuy séddale si monde entier journée internationale bi maanaam gars yu dër parce que dañoo seetlu jamono ji gars yu dër souvent dañoo am complexe du nangoo jël parole du nangoo wax moo tax ren ñu choisir comme thème comme pour gars yu dër nekk au devant de la scène quoi gars yi au moins di jël parole di wax moo wan ni bé wan ni au delà seen bégement ñoo am con mooy ñoo am confiance. dañoo war a participer si instance de décision seen dër warul nekk seen garde encore war a nekk benn grande force moo tax ren ñu dañuy gars leen mettre au la scène ñu jël parole exprimer wu quoi pour jéem a briser tamit pour jéem a relever défi quoi pour wane ne si dëkk bi lañ bokk dañoo war a participer waruñu am waruñu am aywa ñu wutali Daara foofe foofee nag jàppalante fondation si la bokk yenn ci ay jumtuwaay yoo xamante ni ah, daal na koy ah, jagleel ah, tout tànk yi rawatina ñi yëngu ci wàllu njàng mi ak njàngale mi moo xam école élémentaire yi collège yi ba sax li nga xam ne nag moom moo di lycée jumtuwaay yoo xamante ni dina mën a tax waajur yi duñu génne ci seen ak gafaga te ndongo yi dañu am fourniture lu ni mel itam lu toll ci ñetti millions ci suñu ay koppar lañu ñu rek daal di ci ngir daal di amal lu ni mel Mamadou Moustapha Ndiaye Sidi Thiam ci caméra bi ñàkkul ne daañ leen ko baaxee ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñàkkul ne euh, ci kàllaamay euh, français ñu wëyal ba tey xibaar yi wutali euh, fa nga xam ne nag moom moo di diwaan bu Médina foofee xam ngeen ne xar kanam gi jéggi na dayoo tax na itam yenn ci ay ndaw yoo xamante ni nag ñu nga fay yeewoo daal di door liggéey bi moo xam lépp lu soxal wàllu cet-cetal bu ko defee ñoom ci seen bopp lu soxal itam melokaan wi mën a rek coppeeku Pape Thierno moom mooy président bu fédération jeune wu Médina moom la ñuy taataan ay doom ci micro Alxasan Ba ak Pape ni Mbaye ñëpp xam nañ ne assainissement bi xaw na compliqué ici à la Médina mais ngal la état mi ngi siy bay ay waaram. léegi nag euh, affaire bi day jël en cours l'église des aujourd'hui c'est la population surtout les jeunes ñoom ñoo war a jug ku si nekk nag entité bi nga bokk euh, vraiment nga ñëw ko unité pour pour pour contribuer à ces à ces actes communautaires à grande envergure comme ni ko ndaw yi yëpp nekk sama ginnaaw defee te tout à l'heure incha allah dinañ dugg si hôpital bi remettre quelques dons symboliques incha allah pour pouvoir wane ne euh, ndaw Médina yi manqué nañ ndaw Médina yi taxaw nañ ndaw Médina yi dinañ siggi fépp fu ñu munti nekk pour incha allah contribuer de manière pérenne au cadre de vie à l'épanouissement à l'encadrement à la formation e à l'insertion de no jeunes incha allah. tey mooy deuxième journée bi ñu defee ko à Diecko jàppoo ak le centre de santé Elisabeth Diouf mais première journée bi defoon nañ ko à Niakhar te prévoir nañ dem si les différents quartiers de la Médina Guy Selaan Dames Kusum et cetera dinañ dem quartier yëpp vraiment euh, ñëw jàppale ndaw yi mais tamit di wax ne a à sa santé y a d'autres quartiers yoo xam ne sensibiliser nañ leen ñoom tamit ñu ngi def set même ñu ngi def même acte bi. aywa ñu àddu ci wàllu euh, tàggat yaram xam ngeen ne euh, Jeux olympiques euh, de la jeunesse ñu ngi ko àpp ci atum deux mille vingt six jàppale ne nag fédération sénégalaise bu karaté ak yeneen i discipline ñoom ci seen bopp ñoom ñoo manko ngi rek daal di wët loo xamante ni des na ko mën a def seen ak gafaga bu ko defee itam bile jongante des na ci mën a dem xam ngeen ne fukki at ak juróom ginnaaw bi nag Sénégal wuute boobule championnat nit ki ren nag taxaw nañ temb wala boog atum deux mille vingt six taxaw nañ temm ngir daal di fi indi bépp raaya boo xamante ni euh, teg nañu ko Alxasan Ba Pape Sangone Mbaye ñoo teewe boobule euh, jaxu ñaxtu ñu seetaan reportage. ab circuit lañu topp bàyyi ko place de l'indépendance jaar ci corniche ouest avenue Malick si ci gare bu teer door a teer si fi ñu bàyyi ko woon fédération sénégalaise bu karaté ak discipline associée sori lool stade yi ak dojo yi di amal ay activités citoyennes. ay activités yu bees la yoo xam ne fédération da koy organiser à travers euh, commission sociale bi nga xam ne docteur Djibi Diallo préfet euh, Dakar Plateau moo ko moo ko dirigé donc moo andi euh, innovation yooyu et te loolu vraiment fédération di ko ci remercier di ko gërëm di ko ñaanal également ñu gis ne karatekaay mobilisé wu nañ bu baax ci activités yooyu ça démontre que kii bi du. sport bi kese du tëju di def karaté ci saal yi wala di def ay compétition rek am na leneen loo xam ne war nañ ko mën apporter au Sénégal au delà des activités sportives donc loolu lañ commencé di ko def nii. bu weesoo tàggat yaram gi liñ ci sàkku mooy jéem a fexe jaay destination bu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci moom mi nga xamante ni moo taxal initiative bi. tey bi ñu jël tey dañoo mën a dañu doon wane que ne karaté bi mën na nekk tey économie mën na nekk tey culture war nañ suñu corniche day attiré war suñu suñu terre bi day attiré. donc Sénégal lañu bëgg a jaay surtout que Sadio Mané tey ku nekk bëgg na xam fan la dëkk ku nekk bëgg na xam tey fan mooy fan mooy Sénégal occasion la pour ñu jaay destination Sénégal donc trophée yu ñuy am dañ ko war a valoriser. lu ëpp fukki at ak juróom Sénégal bokkul ci championnat du monde yi waaye bi yoon fédération bi dana participer ci Jeux olympiques de la jeunesse bi ñu amal at 2026 te ñu ngi sàkku ñu gunge leen ci wàllu moyen ngir ñu am ay résultats yu positif te bu ñu nee am médaille ci karaté lañ ko yaakaare mooy yi mu laaj nag dafa laaj sponsor ñëw jàpp ci jàpp ci taxawu taxaw ñu pour que suñu jeunes yi xale yi lay fi nekk ñu mën a taxawu effectivement pour andi ay médailles. te ñu bëgg également ak euh, état bi jàppale ñu si yenn entreprise aussi jàppale nañu si am nañu commencé ñoo xam ne ñu ngi commencé def ay euh, démarche ak ñoom ba nga xam ne suupa peut-être am nañu yaakaar ne dina dina dina dina sotti. fédération sénégalaise bu karaté ak discipline associée rafetlu lool mobilisation bii ni mel njiit li di fàttali ne athlètes yi nga xamante ni war nañ bokk ci jeux olympiques yi faw ñu fexe ba jamono jii ni ñu waajal leen ñu mën a diirante mbagg ñii nga xamante ni ñoo fare ci yeneen réew yi muy ci catégorie cadet ak junior yi. lépp ñu ngi ko yëkkatee ci randonnée pédestre yi nga xam ne nag ñu ngi ko doon amal ñu wëyal ba tey des ci wàllu euh, tàggat yaram bi la yoon nag ñu soobu ci li nga xam ne nag moom moo di euh, football wax itam euh, ci ñaareelu journée bu Ligue 1 xam ngeen ni itam bëri woon na ci ay ndaje yoo xamante ni amoon na ni ki tey ci dibeer bi bi 16h30 jotee jàppale ne nag jàmbaar FC daa daal di dóor ñaari bal ci benn Linguère Sonacos ak itam stade bu mbuur dañoo rek daal di témboo bal demul ndam demul ndam dikkul AS Douane moom moo daal di dóor benn bal ci dara jaraaf jàppale ne génération foot ak itam Casa Sport dañoo rek euh, tembo AS Pikine daal di dóor Ouezo Ouezo euh, gore ngeen baal ma benn bal ci euh, dara Géejawaay euh, FC ak itam Dakar Sacré-Cœur ñoom ñaar dañoo dak daal di euh, témbo ndam demul ndam dikkul Tëngéej FC daal di dóor li nga xam ne moom moo di CNEPS bu Thiès ñaari bal ci dara xam ngeen ba tey ginnaaw wàllu ñaareelu journée bu Ligue ñu tàbbi ci li nga xam ne nag moom moo di but choqueur maanaam match yi nga xam ne réew bu Sénégal mi ngi ko doon amal ni ki tey ji maanaam li nga xam ne moom moo di football bu tefes gi gaynde yi Sénégal yi nag dañoo mujj rek daal di am ndam euh, seen diggante ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di euh, égyptiens yi mu mel ni itam euh, juróom benn bal ci ñeent rek lañ leen daal di dóor mu mel ni itam gaynde Sénégal yi daal nañu rek qualifié ci li nga xam ne nag moom moo di demi finale yi ni ki ëllëg daañu daje ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di malgache yi bu 13h jotee ba toftalu fanweeri simili maanaam benn waxtu bu jotee ba toftalu fanweeru simili lañ koy rek euh, daal di euh, amal jongante euh, bu ni mel mbokki fi fii la ñuy jaar daal di buural jotaay yi dig daje ak rédaction bu télévision future Média léegi léegi Sara Cissé dina fi teew jukki leen xibaar yi ci kàllaamay français man itam ma jox leen dig daje ni ki ëllëg incha allah à partir de 6h30 mu ñeel seen émission info du matin revue des li gën a fës ci li yéen kaay yi xëyee dinaa leen ko faram-fàcceel incha allah ci seen émission info du matin lu mooy la lay leen di des ak programme bu télévision. télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm.